Assalamualaikum, assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen ziar yéen ñëpp di leen def jam wàccuwaay di ñaan suñu jam yi di yang jaji fo kita di bi yéen ñëpp ki wax ak yéen di seen mbokk seen compatriote Akhenaton bi ngeen bokkal senegal fas yéene dafa yéen waxtaan di ñaan ñu yaatal ko ba ñëpp mën cee tàbbi parce que nekkuma TikTok Facebook maa ngi YouTube bi spécialement ci YouTube bi rek laay defee live kon nañu fexe ba ñi nga xam ne dañu daan déglu ci Facebook bi ak ci TikTok bi ñu fexe ba ñu mën a tàbbi ci chaîne YouTube bi fii parce que fii laay defee waxtaan wi ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay kon ñu négé ni am ndiir diir bu gàtt rek mbooloo mi mën a tàbbi si ñu mën a tàmbali waxtaan wi ngeen jokkalante ko partagé ko ba ñëpp mën a teewlu ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp salaamaaleykum léegi-léegi waaw comme ni ñu ko waxee woon léegi rek dañ koy bamtuwaat rek comme ñi nga xam na ñu ngi dawee di tàbbi si ñu wax leen ne dañoo bëgg a def ak yéen waxtaan ci xew-xew réew mi fi Sénégal toll ki si ki seen mbokk ak Akhenaton nañ ko sax dawee def at ne ay at yu bare ngi bare ngi nii ñu seq ay waxtaan ci képpaango gi di ci wax ngir li nga xam ne daf ñoo ñeel ñun Sénégalais yëpp ñu bokk te mooy réew mi li xew xam ngeen ko xam naa ko ñëpp xam nañ ko mi ngi dox di xew bés bu nekk sotteegul xamaguñu fuñ jëm waaw coow li na wax ji bari na ñii dee nañu ñi dugg nañ ci géej gi ñi daw nañu ñi lafañ nañu ñii ngi ci kaso yi ñii génn nañu coow li bari na lool ku nekk ngi wax ku nekk ngi jëfaru waaye nag dara duñu bàyyi niñ daan def rek dajaloo waxtaan pencoo jëndante kenn ku ne mën a xam fooy teg sa tànk ngir Sénégal mën a mucc ndax nekkatul man yow wala Ousmane wala kenn Sénégal ci boppam fi mu nii moo dugg ci coow li ba jaxasoo te bu Sénégal tàkkee ñun ñëpp dañuy ñàkk kon nañu fexe ba sauver Sénégal fexe ba sauver Sénégal fexe ba Sénégal mucc ndax bu muccee ñu mucc kon nañ ko partagé yokkalante ko ba mbooloo mi mën a teew ndax nekkuma euh, Facebook nekkuma TikTok fii dong laa nekk tey YouTube mm, mbooloo mi nga xam ne tàmm nañ di ñu topp ñu mën a agsi ci YouTube bi mën a dugg ci page bi mën a abonné aussi parce que c'est vrai que ñun duñ ko toppatoo ay abonné ak yooyu c'est vrai du suñu yitte waaye nag euh, bàyyi leen ci xel si jàpp jàpp ci page bi dooleel ko may ko doole ba nga xam ne euh, dana am doole ngir ñu mën a euh, am mbooloo mu ba takkoo takku muy déglu li nga xam ne moom lañ fi tàbbal bu fekkente ne li ñuy wax njëriñ la bien sûr bu waaye ku jàpp ne page bi am na war nga cee mën a abonné fexe ba dugal ci ay nit ñu abonné ñu mën am mbooloo ndax mbooloo mooy doole te doole yooyu dañ ko soxla ngir tabax Sénégal donc page bi daanaka booy xool mul doole c'est parce que duñu ko def propagande duñu wax tapoter tapoter wala boog partager partager wala abonné abonné abonné abonné c'est vrai Euh, donc loolu moo tax euh, xëy na page bi am doole ñun dañuy ñëw rek wax li ñuy wax dem suñu yoon kon boog ku jàpp ne war na defal loolu mu defal ñu ko ngir yàlla ak xeex bi ak Sénégal ñu ngi leen di ziar kon di xaaw mbooloo mi teewlu ñu mën a tàmbali waxtaan incha allah kii wax ak yéen seen ak Akhenaton ngeen xam ne xam ko ci waxtaan xam ngeen ko ci kippaang bi yàgg nañu loolu ay at i at bëgg a miinante kon ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen masaw di leen jox tamit ci bi déglu bi partagé yàlla fay comme ni ngeen ko gisee donc Dakar gépp nga ci biti mbedd yi ñëpp ngi génn maître ngañ Demba Touré moo ñibbi si jóge Mali maître ngañ Demba Touré kon jóge na Mali ñibbi si na ngir fas yéene jàpp ci campagne bi ànd ak sénégal yi ñëpp nga ci mbedd yi gis ngeen ay fan a ngi nii jàppatuñu kenn tereetuñu campagne tereetuñu kenn def dara loolu yëpp daan ci dikk waxtaan ak yéen wax leen fi Sénégal jëm incha allahu rabbi ndax loolu lañ digale woon ak yéen ay ati at lu soobee yàlla fépp fuñ jëm ba ñu ci àgg di ngeen ko xam kon maître ngañ Demba Touré jóge na Mali ci exilam jaay doole gi ñu ko doon jaay lépp dellu si ne mi ngi biir Sénégal bis naka tey mi ngi ci mbedd yi Ndakaar yi ñëpp ngi ànd ak moom incha allahu rabbi Sénégal gi nga xam ne mooy Sénégal gu bees gi ñu a tabax patriotiquement Sénégal googu moom lañ leen nar a wax leen fu Macky Sall toll fu Ousmane Sonko toll fu Sénégal jëm Sénégal gu ëllëg gi ñu bëgg mu Sénégal goo xam ne kenn mënu ci dara Sénégal bi a tabax amul mu ko mën a arrêté du Mountakha Mbacké du Mbaye Sy Mansour du kenn ku ko mën a arrêté incha allah rabbi parce que mbooloo mi moo ko décidé te ñun ñooy mbooloo mi ñooy majorité bi par force dañuy dem ci Sénégal bi ñu bëgg du yomb dana jafe dana bari ñu dee dana bari ñu exilé wu dana bari dana bari mais par force Sénégal gi ñu bëgg dañ koy am amul kenn ku ñu mën tere am Sénégal gi ñu bëgg parce que dogu nañu te ñooy mbooloo mi ndaw ñi Sénégal gi ñu bëgg mooy Sénégal goo xam ne gone yi ñoo ko yore mag ñi ba ñu juddoo ba léegi ñoo yore Sénégal Sénégal jagul mag ñi nañ leen seppi teg fële jël ndaw ñu jox leen réew mi réew mu dem ci àdduna nga doyee ko tabax yàgg naa ko wax nañu gëm ci gone met ngañ déma am fit

du militantisme li ñuy def idéologie la dinaa leen wax tey lan mooy xeex bi lan mooy projet bi dëgg-dëgg parce que boobu ba léegi ñu bari xamuñu li projet bi li ñuy def révolution la li ñuy def leneen la loo xam ne ba léegi ñi koy xeex sax xamuñu lu mu doon yow mi topp Ousmane Sonko yow mi nekk naan Pastef nga bokk xamul loola ci boole looy yëg la waaye du loo mën a expliquer projet bi mënoo teg sa baram ne lii la yëg-yëg la yëg-yëg boobu nag mooy lu fort loolu mooy Sénégal gu bees gi nga xam ne moom la ñu nas Sénégal gi nga xam ne léegi dañuy soppi doomi Sénégal yi def leen ay soldats ndax am réew balaa dox am ay soldat waaye wut am ay lappate citoyen yoo xam ne ay tappet lañu buñ leen jaayee doole ñu mboqat noppi buñ leen tegee ak njaam ñu nekk ak jaam di yelwaan di dundee loolu lañ bëgg mu dakk ci réew mi ak njaam dafiy jóge topp ay nit dafiy jóge ay citoyen yoo xam ne ay patriote lañuy nekk dañuy nekk ay soldat yu taxaw dëgër fit am fulla am fayda ñeme dëgg bëggante àndandoo am solidarité loolu mooy projet bi Ousmane Sonko indi te loolu xas na ba tàkk kenn mootu ko fay kenn du du kenn ko ko mën a fay du tubaab du français du kenn incha allahu rabbi dañuy am ndam kon ñu partagé ko mu yaatu ñu ñëw ci waxtaan wi léegi Ousmane Sonko daf ñoo tere wax ñun détenu yi Ousmane Sonko daf ñoo vénéré ñun détenu yi Ousmane Sonko dañoo rendre un vibrant hommage moo laa jël suñu mbokk détenu yi Bassirou Diomaye Faye def ko candidat kon incha allah rabbi Bassirou Diomaye élection yi nous voulons des élections libres et transparentes nous voulons des élections rapides parce que suñu mbokk détenu yi dañoo war a génn liñ bàyyi mbokki mbokki senegal mbokki diaspora sénégalaise yeen ñep ñi ngi leen di nuyu wa di leen jox seen way di wax ne bu ngeen amee seetlu yeen ñep ci xew-xew yi fi am ci fukki at yi wessu ginaaw bi Ousmane Sonko lambe daj dugg ci langue politique gi ba am lu muy indi muy xibaar bu bees wax bu bees fasin bu bees doxalin bu bees ak njub ak dëgg ba gor go ne bu leen yeen ndaw ñi Ousmane ni ku ñak nga ak njub la indi de lu bees la indi ñu ne ko lu muy indi njub la indi ak dëgg muna yen daw ndaw yi réew mi ñu ne ko ah ñi 65 daw ñi muna ha muna bu len usman rëccee ñak ngeen aduna ak àllaaxira ñu ne ko lu tax mu njub la indi ak dëgg loolu moy projet ñi ciow ye ya, projet bi njub la dëgg aku fit usman ñett yi leen ci gi fit njub ak dëgg bo amé dëgg te amo fit sa dëgg du la jëriñ bo jubé te amo fit sa njub du jëriñ lépp loo am ci àdduna te amoo fit wu ko taxawal ñàkk nga ko baax ak jub ak dëggoog yooyu yëpp ay qualité la waaye boo amul fit woo ko dundee ñàkk nga ko fit nit day am fit Ousmane li mu indi ci langue politique bi mooy reyante gatsa gatsa dee wala dund léegi moom la sëf Macky Sall wax naa leen ko ci laaj ba tàyyi ne leen tant que pare wuñu pour dee wala tant que pare wuñu pour tëdd ci kaso yi ñu gañ a Macky Sall parce que Macky Sall ñaari mbir dong la ñu ëppee doole di ñu ko jaay mooy rey ñu ñu tëdd ci bàmmeel yi wala mu tëj ñu ci kaso yi ñaari yooyu dong la ñuy xuppee boobu ñuy xupp mooy rey ñu wala mu def ñu ci kaso yi comme ñaari yooyu dong la Macky Sall am nañ ko ñemee nañu ñeme kaso yi ñeme tëdd ci bàmmeel yi bu ñu ko defee léegi ñu am ndam la ma leen waxoon mooy am parce que muntu a wuy di rey doomi Sénégalais yi bés bu saa su ne bu reyee Macky Sall mi ngi jege bàmmeelam rey yi mi rey moo koy xañ doole rey yi muy rey moo koy néewal doole tëj yi muy tëj moo koy néewal doole lu ma leen waxoon loolu stratégie du chaos généralisé parce que xamu leen l'art de la guerre xamu leen parce que ki mën a guerre mooy ki am fit Sun Tzu l'art de la guerre Sun efficacité dafa efficace ba nga xam ne troupam yi muy engagé pour ñu dem guerre yi en Chine troupe yi muy engagé yambar yi nga xam ne nekk ci biir yox-yox yi Sun Tzu da leen di rey réew du caaxaan patriotisme du caaxaan Sun trop chinois yi nga xam ne daf leen di engagé ci combat bi pour la patrie pour ñu xeexal seen réew am ci ñoo xam ne dañuy yox yoxe ay tapet boo ñuy xeex ci nit buy xeex pour ay pour am réewam am ci ay yambar yoo xam ne xeexuñu amuñu fit ay tapet lañu bu ñuy xeex dañuy daw nee na ñooñu na ngeen leen jàpp nax leen ñu ne ko noo leen nax mu ne gëm leen ne dañuy dem xeex yi dee du am fexe leen ba embarqué leen ci bato bi guerre yi fexe leen ba dugal leen ci guerre ci bato bi pour nax leen leen su ngeen demee du ngeen jeer yéen yéen ci waañooy ngeen di nekk di xool li soble bal yi du leen laal dañ ngeen yóbbu ci cuisine bi ngeen di togg di jox gaa yi xeex nax leen ba ñu dugg seen soo ko wax nee na nga nax leen yambar yi ba ñu dugg ci nga diigal bato bi dee ñoom ñëpp ñu ne seen moo sari mu ne leen déedéet satiguma am réew képp ku mënta futteeku pour xeexal ko pour dee nañ la rey de foofu dara ndax réew mi nekku fii di bay ceeb ni ñuy dundee ko nappaaji ay jeeg réew mi amalu leen lool réew mi bala mu laa alal bala mu laa amal alal ak nappaaje ak lekk gu neex ak liggéey ak jabar bala ngaa nappaage dangay bay sawaar waar ba noppi tool bi da nga cee war a bay bay sa waar bu ñu koy tool bi bu ñu ko naree gental da nga xeex ba te tool bi soog a mën a bay ak nappaaje waaye yow nangu woon nappaaje nangu dara seen journée nañ la dugal ci bato bi ba ci digg géej gi ñu suuxal bato bi nga dee ndax yow tu nuisible à la société amoo njariñ ab làppato nga da ngay xool li seen moom defal loolu tey moo tax chinois yi tey kenn rew leen chinois yi ñoo gën a patriote ci àdduna bi patriotisme bi ñuy wax ci américain chinois yi ñoo gën a patriote américain doomu chinois buy doog a judd bu juddoo li muy yuuxu wala mu ne ñeew patriote lay yuuxu patriote chinois bi buy ne pëtt ci biir nday ji bu génnee patriote lay wax moom day tooñ taxaw loolu mu nga jóge ci Sun Tzu jóge ci Mao Tse-tung ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Deng Xiaoping ñoom Zhou Enlai ñaata chinois ñoo dee ngir chinois ngir Chine gii ngeen taxaw tey ku nekk naan maa ngi dem Chine sama conteneur bi mais xanaa ne bu ngeen xamoon ni chinois yi daj bakkoon ne mën a génn tey kenn du taxaw ci réew moo tax loolu la la la la Mao Deng Xiaoping ñoom Sun Tzu la ñu defoon ca bopp chinois yi bañ a tey taxawoon yilif àdduna bi loolu la Ousmane Sonko indi Sénégal tey. ñi lànk xeex ñëpp nañ leen suuxal ci géej gi moo tax ma ne képp kuy daw ku dugg ci géej gi di raw bokkoo ci xeex bi yàlla na nga dee ci géej gi li ñuy xeex du caaxaan kenn du daw di ko gi ginnaaw dañoo war a teg ñoom. tëdd ci bàmmeel yi wala dugg ci palais bi kese amul dem dikk wala dugg ci kaso yi wala dugg ci palais bi fu mu yem neex mënuñoo rey ñun ñëpp buñ ko ko sëfee mu dellu ginnaaw amul pexe bu ñu ñemee dee rek mu dellu ginnaaw bu ñu ñemee dugg kaso mu dellu ginnaaw amul dem dikk ñaar yooyu dong la ñu a xuppe doole yi ñu yor yëpp doole dara doole kaso ak doole rey rey yóbbu ci bàmmeel nañ ko ñemee. nañ ko ñemee waaye topp ay màggat yu xubidaas cagay paa yoo xam ne seen adduna bi yëpp. tay man ci lañ fi nek ngeen jégal ma ci kaddu gi laalante rek ak jur ah, ay doom ay girax mu suñu xex ay mbokkat lañ bañu démé France di xex dañ leen a forcé takk leen bañ na code par force tuba be leen code tak isa la leen japp ñoom ñep Ibrahima Fall joxe ay domam Alaaji Malik ko ne ko joxe ñu tak bañ na code jël xaliss tek ci duggal leen ci bateau leen dem leen xexi France par force ñu ko dañ leen a du ñay xex kat lolu moy réew mi ku ci taxaw sama mam bu baax ak suñu mag ñu baax ñi ay lapato la ñoom mu suñu xexal réew mi ñun nak ñoy xex ñun

mat na cent ans ñu ngi toog ci bopp réew mi nappaaje jéggi lekk ganaar yi sàcc lekk ko sol seen i kaalaak mbaxana di ñeew ñeewi yor seen i tànte événement lu xew ñu demante dikkalante yor seen i géwale caga di nappaaje bàyyi askan jur sànni ci mbedd mi gone yi tuumarank te yéen a ëpp jur de gone yëpp yéen mag ñi nekk ci réew mi jur yéen gone yi sànni leen ci mbedd mi kenn topp taw ay wëyu ngeen jël jël réew mi jox ko gone yi lii mooy dëgg ñu partagé ko mu yaatu lii ma wax mooy am de bu ñu xeexul jóguñu taxaw sooy nañ ñàkk nañ suñ lépp lépp xeex moo ñu koy may lépp xeex moo koy may bu ñu xeexul élection du am de conseil constitutionnel wax na lii yeeg ña ngay léeg bu ñu xeexul xeex Macky Sall pare pour organiser élection de lu leer laa leen di wax Macky Sall du organiser élection fii ak le 2 avril du ko def voilà ñi nga xam ne du génn bu ñuy manifester ñaan duñu ñu génn parce que wóorul ba lacrymogène démb am ngeen manifestation amul amul dara autorisé li lay xamal ne nit ñi paré wuñu pour xex moy li ñuy lay naan amuñu da nga manifestation yi bal ak lacrymogène mais même suñ ko autoriser nit ñi duñu génn pourquoi donte am na ñu génn démb samedi mais heure bi ñu ko def tamit baaxul ay 11h 13h loolu moom waa ar suñu élection buñ ñu ko defati parce que dañuy saboté ay manifestation ay 11h heure bi nga xamne moy heure pause heure yi nit ñi añ nga ci manifester il faut pas le faire pourquoi ngeen koy accepter il faut arrêter une manifestation ça se fait à 9h ou bien à 15h. 9 heures ci suba wala 15 h mais a ay manifestation 11 h wala jeex 13 h 14 h mais c'est pas sérieux motax nit ñi mais il faut arrêter ça wa ar suñu élection la prochaine fois su ngeen fixe ay date na ngeen def li nit ñi bëgg mais bu leen tok ci seen conférence de presse seen bureau yi di japp ay bis japp nit ñi ay lappata ñun il faut il faut respecter les sénégal def li ñu xam di organiser ay marche ak ay ñaxtu ci horaire yoo xam ne dina mën a tax nit ñi génn parce que organiser ko ci ay horaire yoo xam ne xaar ba la lendemain nga ne suba lañ ko autorisé génn autorisation bi jël benn itinéraire bu gàtt teg ko jël ci ay horaire yoo xam ne du ñu am loolu sabotage la liggéeyal Macky Sall loolu du aar loolu liggéeyal Macky Sall la il faut que waa aar suñu élection arrêté Ngagne Demba mooy Me Ngagne Demba Touré dem na mi ngi Dakar effectivement ñeneen ak ñeneen daañu ñibbi ñu bëri daañu dem oui dinañ dem loolu nag li ko waral fii ak sama impression ngeen ko xam di xam lu tax xeex rek gàtt sa rek gàtt sa gàtt sa rek xeex li may wax rek Macky Sall xamul naxante xamul waxtaan xamul dara xeex rek kuy xeex ak moom dong la xam xeex rek. Ousmane Sonko ëpp fi kenn xam-xam xamul lu kenn xamul jub na mais ñu ko gën a juba nekk ci réew mi Ousmane Sonko bi waaw waaye li mu am te ñu bari amuñu ko li mu ëppalee ñu bari du xam-xam du njub li mu ëppalee ñu bari mooy fit Ousmane fu mu fit moo ko may lu mu am fit moo ko may lépp lu mos a taxawal ba yëkkati loxoom naan defuma def ma li fit moo ko may Ousmane li mu xuus ko amul fit du ko def du am maanaam li mu am yëpp ci ay qualité fit moo ko du xam-xam Ousmane dàqut a jàng kenn. gën a xam xamu fi lu kenn xamul Ousmane amul lu mu wax lu mu Ousmane lu mu fi wax nit ñi xam nañ ko il n'est pas extraordinaire ah du xam-xam du Ousmane li mu ëppalee nit ñi mooy fit. loolu nag kenn ku ci nekk war ngaa xoolaat sa bopp kenn ku ci nekk ci yéen war ngaa xoolaat sa bopp kenn ku ci nekk ci yéen war naa yedd boppam. toog ngeen jóge Sénégal tey jii nag moo ne dafay ñibbisi wat dëkkam gis ngeen ñibbisi bi gerte bi nga xamante ni daal dañ ko koy jagleel parce que lu yeewoo fii ci Grand Yoff askan wi yeewoo Grand daal di ko koy jagleel muy test boo xamante ni yéen koy gis ci image yi Yoff génn ngir teeru seen doom daal di koy wajooy seen baay ñëw na lii lépp li muy tekki rek mooy liñ doon wax rek xeex biñ doon xeex dañoo waroon a xeex lii lépp li muy tekki mooy réew mi mosut dox ci justice mosut dox ci yoon mosut dox ci loi ci jaay doole la mos a doxee Macky Sall moo nekk ci bopp réew mi ànd ak ay wuyu ak lobby ak i bandi ñu jàpp nañ ñi di leen kidnappé di def ay rafle di jàppale tëj ci kaso yi waxuma arrêté waxuma jugé waxuma libéré provisoire waxuma mandat de dépôt dañ doon rafle kidnappé def ci kaso bi kidnappé ak délation. diw de xeet bokk diw passif la nga takk bracelet wala nga yor téléphone def ci photo Ousmane Sonko wala nga sol mbubu passé wala ñu jàpp ramasse xam nga loolu loolu démocratie de justice loole moo fi amoon banditisme d'état moo fi amoon ñu koy xeex ak Macky Sall ba tey jii mu agsi ci position boo xam ne moom Macky Sall amatul pexe amun lenn loo xam ne Macky Sall daf ñu koy may mayuñu dara ñaan ñaanuñu ko dara force lañu dañ koy forcer lu mu def dañ koy forcer par force dañuy reyanteeg moom mu rey ñu wala ñu rey ko foofu lañ toll ak moom démb ak tey ak suba duñu ko may dara du ñu may dara waaw dellu ci yoon dellu si bàyyi arrêté banditisme d'état am bii mu nekkee jàpp tëj rek yeg yeeg yooyu mu arrêté ko wala ñu xeex ak moom ba ñu jeex tàkk tàkk tak tàkk mu jeexal ñu wala ñu jeexal ko kese amul lu ñuy négocier ak moom amul lu ñuy wax ak moom gat sa rek incha allahu rabbi daañu am ndam ci kawam jël réew mi teg ko ci dëgg ak njub sénégalais yi nekk diaspora bi ñëpp ñibbi Sénégal seen yéene yëpp ñu àggale ko défendre Sénégal à senegal ñëpp dañ ñibbi parce que Macky Sall moom moomuñu moomuñu senegal dañuy xeex ak moom amuñu lu ñu koy may rey na ba sonn tëj na ba sonn làggil na ba sonn dóor na ay bal ba sonn xupp na ba sonn teg na ay liste ci bi ne kenn jàll yëpp def na ko ba sonn du tax ñu bàyyi xeex rek Sénégal gu bees moo fi nekk ngelaw lu bees a fi ne natural mystic Bob Marley natural mystic Bob Marley there is a natural mystic blowing into the air wow they sometimes I have to suffer but sometimes I have to die but don't ask me why Bob Marley ko wax dam leen ngeen déglu ko waaw xeex rek waaw natural mystic waaw la ko wax kese li nekk ci ngelaw nit ñi di ko noyyi xale yi di ko noyyi mag ñi commencé ko noyyi ñëpp commencé ko noyyi muy dëgg gi Ousmane Sonko indi kenn mënu ci dara loolu du lu ñuy wax lu ñu yëg la Sénégal gu bees a am ay soldaar dañoo fekkoon ay làppatoy Sénégal gi def leen ay jaam takk leen ay buum jox leen ay sëriñ dañ leen tinki léegi ne leen ay soldaar ngeen léegi ay patriote ngeen nekkatu leen ay taalibe ay làppato réew mi yéen a ko war a aar yéen a ko war defaan jóg leen dugal ci seen bopp yi xam-xam dëgg ak njub génn ci ak toppaate ak làppato ay joxe àddi yaak ay topp ay politiciens yi saako ceeb gi tissu ñu dindi lépp sànni ci àll ba dugal ci bëgg sa bopp gëm sa bopp gëm sa réew gëm sa koom am fit taxaw loolu la Ousmane Sonko indi lii mooy ñëpp ju taxaw Sénégal gépp di riir lii mooy projet bi la révolution est-ce que dégg une révolution Nous ñun Sonko rek top Nous sommes ñun dégluwuñu kenn Sonko rek la barki Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ñun Sonko lañu top dégluwuñu kenn c'est wax une vague de révolution nit ñi bëgg nañu Serigne Touba xam nañu Serigne Touba waaye nit ñi bëgg nañ Sénégal bëgg nañ Ousmane Sonko Ousmane Sonko maay indi dëgg gi ngeen nekke man Ousmane Sonko maa koy réincarné man maay mujaddid bi nga xam ne maay indi waat dëgg alxaq teg ko ci ko taabal ji ba seen taalibe yëpp topp ma mu nekk ngelaw lu ñuy noyyi di nekk ndox mu ñu naan force nga xam dañu am fit mën a xeex bokkul ak seen taaliba yi ñu takkoon yóbbu leen France bokkul ak taaliba Alaaji malik bi joxe woon doomam Ahmed Si bokkul ak Serigne Touba mi waroon a joxe doomam Ibra Fall nako det déet Fallu Fall laa joxe sama doom bokkul ak isa lay bi doon takk àdd yi rek taaliba yi di yóbbu France ñuy xeex taaliba yooyu amatul Ousmane Sonko ne na léegi ba yeneen façon taaliba mooy am mooy ay taaliba 3 point 0 ay taaliba yu connecté taaliba yu am fit taaliba yoo xam ne dañu bëgg Serigne Touba ba noppi bëgg Sénégal taaliba yoo xam ne duñ déglu Muntaxa Mbàkke duñ déglu Mbay Si Mansour Ousmane Sonko li ñuy déglu ci wàllu Sénégal nuñ koy tabaxee duñ ci déglu kenn mën ngeen dégg léegi ñu di ko wax Sénégal Sénégal googu moo bees loolu mooy disque ma leen waxoon ngeen téléchargé ko le disque est en téléchargement par la force des choses ñëpp dinañ ko upload ñëpp dinañ ko téléchargé ko dawal ba mu daw lii mooy révolution bi mooy projet bi kenn dara yàgg ko wax bàyyi li wax da nga yàqal parti bi da nga Sonko bàyyi sëriñ si nga may duñu dara duñu ay sëriñ ay tappalekat lañ Ousmane Sonko bu fekkante dëgg ci yàlla bu fekkee Ousmane Sonko gëm na yàlla bu fekkee taalibe Muntaxa yi daañu bëgg Ousmane Sonko par force yàllaa koy dogal taalibe Mbaye Sy Mansour yi daañu bëgg Ousmane Sonko par force donte Muntaxa ak Mbaye Sy Mansour yi duudi mi ci yoo fa ñaari cerno yi bëgguñu Ousmane Sonko yàlla dana bipp mbooloo ma ñu ànd yàlla jël mbooloo moomu ubbi seen dugal ci Ousmane Sonko te loolu moo am tey dañ naan Ousmane Sonko dong la topp barke Cheikhul Khadim Ousmane Sonko la Sonko la topp barke Maam la ñu topp ku man ci sort of, you know, yéen ñu bari ci yéen ñi may woo di ma envoyé message sa frère bi ndax bàyyi sama frère bàyyi wuñ ko man du ma wax sama frère bi nekk ci mode xeex au ma frère sa man ñu ci kaso bi ñu ci patriotisme yar ñu ci bëgg Sénégal ci kaso bi ak seen frère bi nekk ci kaso bi laa yemal ñoom ñëpp duma ma yëkkati sama kàddu mukk di yëkkati sama frère parce que maa ngi ko bokk parce man fraternité bi ma seq ak yéen mu nekk ci biir Pastef F ba fraternité boobu amul frère de sang ou frère de kii ñun ñëpp ay frère lañ moo tax óoma di wax ci sama lu ma jege di bàyyi lu ma sori yéen a ma jege man ak yéen ñëpp doog xeex ñu nekk ci kaso bi ñëpp ay commande ñoom ñëpp samay frère lañ ni ma téyee sama propre frère bi nekk ci kaso bi noonu laa leen téye ñoom moo tax du ma di que ay patriote donc man uma ay problème mu frère bu nekk ci kaso c'est vrai am naa sama propre frère mi ngi ci kaso bi mosu leen dégg ko mais yéen a ngi koy commenté di ko wax mais bëgguma sax ku ci wax mosuma cee wax mosuma koo jooyal parce que man je suis digne te moom il est digne Ousmane Sonko na moom sama frère xam na man xam donc li ñuy xeex dafa dépasser ay frères li ñuy xeex dafa dépasser ay sëriñ li ñuy xeex dafa dépasser ay papa ki yaay ak jabar ki frère li ñuy xeex c'est une fraternité générale c'est l'intérêt du Sénégal nous sommes des col des soldats nous sommes des combattants c'est Ousmane Sonko le général nekkuñu fi pour di bëtt di bëtt joy de kenn du joy jigéen ñi sax bàyyi nañu jooy jigéen ñaa ci kasso yi tok buñ fi nekk di wax kii génn nag kii génn toppatoo wu ma kuy génn kuy génn ñëppay génn wala ñëpp dee loolu mooy fi ñu toll man foofu la toll nekkuma fi di par parloo moo tax ba may wax ci jabari Ousmane Sonko di wax ci ay mbokk Ousmane Sonko ma tàng ne bu wax ay mbokk ay tudde ne ko doom ku ma ko wax ma saaga la ay tudde doom tollu ma ay xarit tollu ma ay mbokk tollu ma ay jabar tollu ma ay frère li ñuy xeex moo gën a kawe lool lépp kon bu ci kenn dugal loolu nañu bàyyi par parloo bi te lii mooy li ñuy xeex li ñuy xeex ku ko comprendre doo fi nekk di wax ay papa ay yaay ay sëriñ ay jabar ay doom ay sama sama sama sama Thank <laughs> you. rek donc yéen ñi nga xamante ni yéen ay soog a dugg ci euh, live bi euh, wax leen rek ni que euh, nous sommes avec maître Ngagne Demba Touré fii ci maître Ngagne Demba Touré nag ginnaaw ba mu génnee dëkk bi lu toll ci ay weer. donc tay ci mu daal di décider eh, ñëwaat fi nga xamante ne mooy dëkkum di Sénégal waaye dem ba mu ñëwee ak ci mbooloo boo xamanteni ni yéen a koy gis ci image man am naa sa taxaw naan sama frère dañ koo jàpp ak dañuy man ñun kenn yaruñu ñun dañu yar ci dignité yar ñu ci ngor yar ñu ci combativité ak fit ak dëgg loolu la ñu xam waaw dañuy xeex képp kuñ jàpp sama frère ku ñu bàyyi sama frère nga ak sama sœur da xàmmewu ma parce que projet bi amul projet bi ñun ñëpp ay frère lañu ak sœur amul kii laa bokkal ak bokkul wala kii loolu dëgg waaw ñi génn dañoo war a génn ñi nekk ci kaso bi dañoo war a génn te ñëppay génn incha allah ñun ñëppay génn wala ñëpp dellu ci kaso bi ñun ñëpp ci kaso bi la xam ñu ci kaso bi yàgg naa ko wax dañuy nekk ci biti libre di opposer librement di aspirer à diriger ce pays teg suñu ay projet di wax ak askan wi askan wi duñu bëgg ñu am doole ñu teg suñu candidat bi ñu bëgg muy Ousmane Sonko mënuñu koo am ñun ñëpp ñu tëdd ci kaso yi wala ñu tëdd ci bàmmeel yi su fekkee Macky Sall mën nañoo rey nañu rey ñun ñëpp wala mu dugal ñu ci kaso yi jàpp ñu ñun ñëpp na ko def mais li mu bëgg duñ ko ko nangul mooy takku ñu ay buumu njaam du fi am ñëppay génn par force wala ñu du dellu ci kaso yi gis nga ñi mu gën bu ñëpp génnul ñi mu ñi jot a génn ñëppay dellu ci kaso yi dem dajji ndayu kaso yëpp ñun nous sommes dans une dynamique irréversible nous sommes un tsunami un ouragan nous cassons tout sur notre passage nous sommes la majorité nous sommes la force nous sommes la jeunesse nous sommes la connaissance et nous sommes l'amour de la patrie je le dis à haute voix intelligible sans modestie nous sommes la puissance kenn mënu ci dara Bassirou Mbacké Muntaxa ak Mbay si bu leen neexee ngeen bañ ñu bu leen neexee ngeen complo bu leen neexee ngeen ànd ak Mariam Baali Muntaxa def leen lu leen neex ci ci seen kaw lañ jëm tsunami lañ tsunami bu daw di ñëw ngelaw loo xam ne vague yoo xam ne bu ñëwee di ngeen xam ne lépp dëgg la nëbbatuwuñu ñu ñoo ngi ñëw def leen lu ngeen mën nag lu ngeen xam ne ko def da ngeen ñoo contre ndaw ñi contre Ousmane Sonko contre wa passé contre Sénégal gi ànd ak Ousmane Sonko yow Touba Tiwaawa nag Ndiassane ki yoo fekk ba da ngeen ñëw contre bëggu leen ñu yéen a ngi ak Macky Sall di ko mën ci suuf waajal leen seen bop da ngeen préparer ñoo ngi ñew parce que nag bëgg a ëpp ya ba tagi gi dafa dañuy bëgg fonto sol seen i gas neen na pàgge seen i jeeg yor seen i gàmm ki màggal ak i cant yor seen i taalibe lekk suñuy àddiya ñu leen di bayal seen i tool jënd la oto jox leen Macky di leen saaku seen magasin yu ceeb ceebu banaana yor suñuy passeport diplomatique di dugg ci avion yi dem fajoo ji yëpp ci alalu askan wi baaleeg Mountakha ci Mbaye Sy Mansour ñëpp kenn ku ci nekk Macky Sall lay suñu alal ñun bu ñu amee naqar ñu ne ñu son yónni ko buñ jógee di xew ñu wax bu ñu amee jën jafe-jafe ñu tey la tey lañ mën a bu sell ay muntaxaal yi kër kër ngeen ku nekk di wax tabax ay nga nekk mënut am ndox vous sérieux su ma ko waxee ngeen amul amul war ma amul respect u pensez que ça c'est sérieux ngeen ne kenn du ko wax ci lan ngeen bëgg a dund dëkk bu toll na Touba am mën leen am ndox mu ngeen naan dugg ji jumaa Touba ji da ngay bëgg a jàpp pour julli mënoo am jàpp da ngay tiim dëkk bu Serigne Touba buñ demee ba mënoo am ndox moo jàppee pour julli ngeen Serigne Touba tabax juma tabax ab dëkk bind ay xasida ñëpp ne est-ce que est-ce que est ji mu sant boo fa duggee mënoo am ndox moo laabale sa jiib jaamu yàlla da ngay tiim ay weer rek nii amu leen ndox mu ngeen naan amu leen ndox mu ngeen jàppe waxuñu la ndox mu ngeen sangoo bii Touba ñu ne kenn du ko wax ñu ne dëkk bu sell ana sell bi sell fan la mën a fu sell mën a ànd ci amul ndox ci ci diina ci ci ci ci ci ci ci charia ci fiq ndox mooy laabal ndox moom lañ moom mooy li ñu mooy li ñu taamu ci laabal soo ko demee ba ñàkkoon a nguur yeneen mais ndox mooy laabal ndox Touba amuñu ndox mu sell ñu ne dafa sell dëkk bi amul ndox mu sell ñu ne kenn du ko wax su ko Akhenaton waxee ñun dafa réew dafa manqué war ma dafa liggéey kër mais duñu xool li muy wax ndax am na wala amul de déedéet wax ji la ñuy xool nu mu ko waxee toppatoo ma nu ma neex laa koy waxee nu ma neex laa koy waxe tapale rek tapale yooyu yëpp mo fi jeex tapale bi nek tiawon day jeex bi nek yof ku dudu day jeex tapale bi si ñaari cerno bi ci kaw day jeex tapale bi nek Touba lepp jeex tappale yëpp ay jeex xey liggey yi par force tabax rew mu ci xam-xam ak bëggante ak fit ak défendre Sénégal Sénégal gog lañu bëgg tuñu Sénégal ay magal ki cant ki gamlo ki kasu rajabe ki pousse géejee ki siar général ki appelé ki appel ci kaw ak appel suuf yoy yep ay tapale la lolu bu doon dëgg Sénégal soqali na yàgg bu doon dëgg Touba am ndox li ngeen magal ci Touba kenn xamul tool Touba ba légui amul ndox li ngeen magal lu ndon li ngeen magal lu ndon wax leen ko wax ji du neex li ngeen di màggal mille huit cent mille neuf cent vingt sept ngeen ko commencé màggal ba léegi Touba ndox def leen la calcul bientôt cent ans bientôt ab xarnu amu leen am ndox ngeen yéen am ngeen baatin am ngeen zahir am ngeen doole am ngeen alal am ngeen xam-xam am ngeen yàlla amu leen ndox mu ngeen mën a jàppee pour julli y problème. te loolu du waa Touba du njaboot gi dëkk Touba yéen waa Touba yéen habitant Touba yi waxuma yéen yéen gàcce ngalaaba yéen yéen dama leen a yërëm li leen dal yéen waa Touba ay ñu sant Mbàkke ñoo nekk ci kaw def seen bopp ay buur def leen ay jaam yéen ñoom ñoo leen teg li ñoom manqué wuñ ndox de ñu sant Mbàkke ñi camion ndox yaa ngi indeeku ñuy naan ndox bu baax di lekk-lekk bu baax ñoom ñi ngi seen àjjana te deewaguñu yéen njabootu Touba lañ def ay nitu safara yéen njabootu Touba yéen ay dee yéen njabootu Touba yéen a amul ndox yéen la ñuy teg jafe-jafe yëpp ñoom ñu sant Mbàkke nekk ci kaw ñi ngi dund seen àjjana gu nooy ci biir dëkk bi ñoom am nañu ndox yéen yéen a amul ndox ñoom am nañ ko ñu ne kenn ko wax pourquoi ñi nekk ay buur ñu nekk ay jaam loolu la fi sëñ Tuubaa indi ban diine yàlla indi boo xam ne ñii dañuy nekk buur ñu nekk jaam sëñ Tuubaa li mu fi indi mooy ay mbokkam nekk ay buur ay taalibeem nekk ay jaam loolu la fi sëñ Tuubaa indi sëñ tubaa li mu fi bàyyi mooy ñu sant Mbàkke nekk ay buur ne nangu ci kaw ñu sant ay Jóobe ki Jaxumpa ki Njaay ki Sawa ki ba taalibe yi nekk ay jaam diine jooju la fi sëñ Tuubaa indi loolu du diine ak noggatu la exploitation la loolu ak njaam la du diine loolu tam dafiy jógee par force dafiy jógee nit ñi daañu dund par force koom-koom bi nekk ci réew mi nit ci jot Touba googu nit ñi daañu jot seen wàllu ci réew mi war nañu am am xëy war a am dëkkuwaay yu baax seen kër yi am ay këyit ñu am ndox am courant am marché bu baax am dund bu yomb am lépp nekk ay citoyen di tànn ki ñu bëgg a tànn mu jiite mairie ba loolu Touba nañ ko am ñi dëkk Touba ñoo war a tànn ki leen di jiite ci wàllu àdduna loolu kenn mun leen ko tere par force dañ ciy àgg kayit ay ay ay ay ay ay ay xawma ko sant ka toog fee dañuy génn par force di wax seen i bëgg-bëgg parce que nit ñi moomu leen leen mbàkke mbàkke yi moomu leen nit ñi yàlla moom te da a booyal li teg jaami Sëriñ Tuubaa sax tegu ko yéen lii lii mais lii dafa metti dund leen naanu leen amu leen ndox mu ngeen naan Tuubaa ñu napp leen bu kenn yëngutu jël ay ba dofi bàyyi faal yoo xam ne tokkatu yàmbaa xasoo xunn njaalooykat bi dëkk bi naka lay selle dëkk bu amul ndox nga dénk nga dox dénkati ko ay bayfaal yoo xam ne koo làmb poosam fekk fa yàmba moo daaka nappaaja ab caga njañ rasta yoo xam ndand kenn xamul xasa xunn ku nga tax sam nopp koy dénk ay façon nit yu dof yooyu dañu waxante dëgg dañu waxante dëgg ñu jàpp di da nga ñii est-ce dëkk boo a am police am gendarmerie am nit ñu civilisé ngir ay dof dénk leen dëkk bi parce que ay dof ñoo nekk ci bopp dëkk bi ñu ne kenn du ko wax abdoulat Ka ku abdoulat Ka ku koy dénk ab mairie kan mooy dénk abdoulat Ka ab mairie il faut que ñu nekk ci yëf yi saay-saay pour jox ko ko affaire bandit la ñuy def c' est des bandits c' est pas des gens de religion amuñu xam-xam amuñu baatin amuñu dara amuñu sax daahir amuñu dara amuñu xam-xam affaire bandit la mbàkkee lañ sam toog ci fonu non jël ay seen nit teg leen ci kaw ñu jël budget bi di ko lekk di leen ko jox ñu ngi nappaaje ay caga ak i jeeg yéen waa Touba ngeen di bëgg a dee lekku leen naan leen amu leen ndax ku saqat ñu duma kenn du fi wax ci prison kaso yéen ñëpp ay jaam ngeen ku fi wax ñu génn dëkk bi xupp toj génn ay Baay Faal yëf yu dof yoo xam ne ngeen ne lii lislaam lii du lislaam du diine diine day respecté doomu aadama diine day bàyyi ne doomu aadama ak àqam yi ko yàlla jox diine day déglu doomu aadama diine day fexe ut ay solution ay saafara ci jafe-jafe jaamu yàlla yi nit ñi Sëriñ Tuubaa moomu leen alaaji Malick moomu leen yow sallallahu alayhi leen nit ñi yàlla moo leen moom bëgg ku leen jàppale yàlla dafa bëgg ko jàppale ci jaamam yi waaye jël jaamu yàlla yi nangu ko ci yàlla def ko say jaamu bopp di leen toroxal di dund di lekk seen àddi yo di leen xub di leen tëj daka dóor di leen tiital naan leen amu leen droit wax ndox amu fi bu fi kenn wax euh, police bi bu ñëwee ki ma bëgg ngeen votel bu ngeen ko bëggul bulletin blanc ngeen votel maire bi may tax na ku ko neex dëkk bi ku fi am kërit doo am yàlla bu ko defoon mais loolu yàlla defu ko naka mën a yàlla deful naka la nit mën a amee sañ-sañu ci moromu nitam boo xam ne yàlla tegu ko ko moom ngeen ne diine la fan la ko sëñ Tuubaa bind sëñ Tuubaa da koo sañ sañu ko lii ay bandi ñoo fi nekk yu fi nekk ci am teg ko kenn sañu ko wax ko wax ñu saaga la ndey wala ñu am fu mu dëkkal di la xupp bokkuma ci génne leen ma ci. ñu dafa am benn système boo xam ne ñaar moo ko caractérisé prédation ak corruption. Maître Ngagne Demba Touré. système boobu dafa war a jeex ci Sénégal est-ce que pare ngeen pour loolu. daa mel ni pare koo de est-ce que pare ngeen pour système bi jeex. su fekkee pare ngeen damay laaj képp ku ñu jógee balaa muy tëdd tey mu imprimer mille spécimen Diomaye mooy Sonko fexe ngoon fépp ci Sénégal weesoo jarul kàddu gi du ndax dañuy door a yegg si dañoo am ay xam mooy li génn fii au mois dafa amoon benn mission boo ne moom laa doon dox ci sama réew jeex na ndax nag boo jàkkaarloo gis boo xam ne buñ nee dissoudre nañ parce que nekkul ne këyit bi rek mais dañ ko jëmbal par ay arrestations ciblées par un démantèlement systématique de l'appareil du parti munu ma woon permettre sa bop dem kasso di lek di nan di nelaw donte ñu fa nek respecté na ren après passer jeex ak li catalyser ci autant de sacrifices il fallait que mu am ñu yeggali projet bi quel que soit nak luñ ci mën a perte loolu moo ma interpellé woon xeex ñu don def jeex na sur le plan politique li fi des mooy dem jëli suñu ndam kon nag maa ngi remercier ñëpp waaye nag détenu yi génn laay wax ay détenu politique lañ nañu xam ne nekkatuñ ay détenu politique ay ambassadeur politique nañ ku ci sa koñ xamal ne leader ku ci nekk xam nga ne yow yaa war a porter projet bi jusqu'à la réalisation li mu wax loolu am solo la démb ci guddi maa ngi koy posté sama mur Facebook di wax ne képp koo xam ne génn nga ci kaso bi ci génn gii nit ñi di génn képp ku génn ci kaso bi yow ab grand électeur li nga war a def moo ñu organiser la ba dëkk ba a dëkk koñ bëgg a dëkk nga fexe ba yow samp fa dem fa def fa am ndaje dajale ko koñ ba sa mbokk yëpp nga wax leen yow naka lañ la jàppee bi nga nekkee ci kase bi noo fa doon dundee xoqatal gi ñu la xoqatal jafe-jafe yi nga dund yëpp nga expliqué ko sa koñ mbedd ma koñ ba dëkk ba ba ñëpp ñëw ba ñëpp xam li xew ci kaso yi nga expliqué wax ko ñëpp. profité ci nag woo askan woowee ne leen nag dañoo bëgg yéen ñëpp ngeen jóg taxaw ñu àndandoo jëlee fi lii ma leen wax ne moom laa dund ci kaso bi te du dara lu ñu jaay doole injustice boo xam ne Macky Sall moo ko fi teg ak ñi àndal ak ñi mu Amadou képp ku génn ci kaso bi sa responsabilité mooy nga dem campagne ca dëkk ba nga dëkk ca koñ ba nga dëkk ca mbedd ma nga dëkk ca kër ga nga dëkk fépp nga def ko ay ndaje en tant que ancien détenu nga génn ñu tax fal la tànt nga woo mbooloo mi wax la yow loo doon def avant ñu lay jàpp lu tax ñu jàpp la nu ñu la jàppee bi nga dugalee ci kaso bi lan torture yeeg dund bi nga dund ci kaso beeg metti métti yaag feebar yaag yëpp nga expliqué ko au détail près ba waa koñ ba waa dëkk ba yëpp xam ko ba noppi nag nga sukkandiku ci loolu nepp nag ne leen lii lépp nag dund naa te yéene ma leen yéen waa koñ bi ngeen dund ko te lii tax ngeen bañ koo dund mooy ñu dox ci dëgg te dëgg googu mooy ñu fal Bassirou Diomaye Faye mi Ousmane Sonko tànn loolu mooy seen campagne yéen ñëpp benn par benn yéen ñëpp Ousmane nga ca kaso ba ak Diomaye ak ñeneen ak ñeneen Ousmane nee na man du ma génn kaso tant que génn leen kaso Ousmane lañ bëgg njëkk a génn mu leen déwuma fenn maa ngi toog si man sama ngor sama ngor may ma man may génn kaso du ñibbi bàyyi fii ñi nga xam ne maag ñoo ma àndoon di xeex bu dëgg taxaw may tëddi sama ñaari jeeg ñu wër ma man tëdd fii Ousmane nee na du ma def loolu bala maa ñibbi sama ñaari jeeg yee ñëpp daañu génn ci kaso bi ñibbi may soog a ñibbi maay maay mujj a génn te lu ngeen ma gën a bàyyi ci kaso bi rek muy gën a métti ci yéen Macky Sall lu Ousmane gën a yàgg ci kaso bi rek muy gën a métti ci yow loolu moom na nga ko xam bu baax a baax a baax a baax duñ la may dara Macky dara duñ la ko may parce que doo maye loo def rek parce que da nga amul pexe. ko may kon Ousmane nga tëdd di xaar ba ñu woo ko ne ko ñëpp génn nañu muy soog a takk ay bagages am génn. ndax Ousmane Sonko du bàyyi mukk njabootam li ma gën a neex ci Ousmane Sonko li ma gën a neex ci Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko dafa fonk njabootam boo ànd moom ba far moom ba dëggal sa bopp Ousmane du la ba boo nekkoon ci biir géej ci taatu géej Ousmane dina nuuru ba ci taatu géej gi fekk la génn la c'est un vrai commandant billahi ça lu ma marqué ci Ousmane Sonko la du bàyyi mukk ay nitam jamais li ko gën a metti tey Ousmane Sonko du ñàkk nekk candidat li ko gën a metti mooy ñu nekk ci kaso yi Ousmane boo ànd ak moom di xeex ci dëgg Ousmane ñi mu gën a fonk mooy ñuy xeex ñi mu a fonk mooy ñu tëdd ci bàmmeel ñi mu gën a fonk mooy ñi a fonk mooy ñu nekk ci kaso ñun ñii di wax Ousmane faale wu de ñu nekk ci kaso yi la Ousmane a fonk ñun ñii nekk ci biti di wax ñu tëdd ci bàmmeel yi la Ousmane a fonk ñun ñu nekk ci bàmmeel loolu il faut ngeen xam ko ni Ousmane dafa gëm ay àndandoom Ousmane dafa nekk un commandant boo xam ne dafa gëm ay troupam Ousmane boo boo àndee moom di bala nga xex moy xex buñ la jappé dina xex pour nga genn tant que du am jam. ki moy Ousmane dafa fidèle ci àndandoo ki moy Ousmane du bàyyi mukk waayam jamais lu mu metti metti metti Ousmane du bàyyi waayam bokkul ak ñooñu nga xamne bu ngeen àndee di xex bu xex bi tàngee ñu dem bala boy ma nga lay jitu kër nga Ousmane du façon boobu day futteeku xeex ak yow ba nga am ndam ngeen ànd ñibbi du ñibbi mukk bala ça c'est une marque de fabrique chez Ousmane Sonko c'est quelque chose qui est fondamental ñu bari duñ ko seetlu Ousmane est fidèle en amitié il est fidèle en compagnonnage Ousmane bu la boole ci boppam c'est fini bala ngaa dee mu dee du du lekk te lekkoo bala sédd boppam sédd la boo amee jafe-jafe mu am jafe da koy partager ak yow boo nekkee ci kaso yi day nekk ci kaso yi Ousmane moo tax bii yoon Ousmane lañu bëgg ñëk gën génn Ousmane du ma génn maay mujj a man Ousmane may mu jëgën bala ma gën sama njabot ñëpp gën ci biti parce que sama du bi ñu dara ma ak ñoma yam yem ñu dara ay tapalé mo ñu fi duggal na ñëpp gën parce que réew baangi suñu loxo le pouvoir nous parvient wa le pouvoir nous parvient par la force et par la volonté divine lii moo la yàlla dogal kenn mënu ko dara kon loolu benn mandarga ci Ousmane Sonko na ngeen ci bàyyi xel Ousmane ku ànd ak moom bul yox yoxe bul ndax Ousmane mooy baag bi nga xam ne boo duggee ci teen Ousmane yor la baag bi Ousmane foo nekk dana la fa dana fa fekk sa njaboot dana nemmeeku ba ci blessé yi sax buñ ne Ousmane diw dafa blessé Ousmane danaan nañ ko faj ñu ne ko xaalis amu fi mu ne ngeen dajal li fi nekk yëpp faj ko dafa damm ji yóbbu leen ko marat fu mu laaj ci àdduna bi yóbbu leen ko bu ngeen ko amul ngeen yolwaan ne ko Ousmane bëggul kenn ku ànd ak moom kuy am naqar wala kuy am jafe-jafe benn boo xam ne moom Ousmane yëg na ko te saafarawu Ousmane mënul lool xeebul benn nit buy xeex ànd ak moom ci projet a tuuti bu dammee Ousmane danaan nañ ko ko mënta nañ ko yóbbu Maroc nañ xam naa ci lu bari loo ne mënu ma ko wax ñu nekk ci kaso yi Ousmane day nemm ko tabaski yi xar yi ni mu jóg dem prison seeti ñëpp dem seen famille seeti ñëpp parti bi ñëpp toog kenn ñemewut a yëngu Ousmane mu ne bëri dem seeti leen ça man man man loolu j'aime ça chez Ousmane moo tax je me su may xeex ak Ousmane Sonko sama xel da parce que ma xam ne Ousmane tey dogal bu ma mën a fekk Ousmane dina dinaa gis Ousmane Ousmane dina ñëw lu ma mënti fekk ci xeex bi Ousmane day ñëw ci mooy Ousmane Sonko et ça c'est important parce que réew mi mënuñu ko tabax ci gore ji ak njaam il faut que ñu gore. il faut que ñu am lu ñuy jaayante jaayante di ngeen wax seen sëriñ si gor moo koy def gor booy jaayante mooy Ousmane du ma gën a gore Ousmane lii mu woote du pour moom pour man ak moom la pour Sénégal gépp la kon lu ci Ousmane defoon naa ko ca mën a def du ma nangu Ousmane di ma ci ëppale loolu mooy as gor gor du lu ñuy wax ci làmmiñ ci jëf la ci ay acte ci posture ci taxawaay Ousmane du bàyyi nitam mukk jamais Ousmane du bàyyi nitam. xeebul kenn képp ku bokk ci projet bi di sac parce que xam na ne projet bi sacrifice la na ne projet bi ay jafe la xam na ne projet bi ay risque la xam na ne projet bi dee kaso tëj damm moo ci nekk xam na ko parce que bu projet bi taxawee suñu coono àdduna jeex na daa iman projet bi bis bu duggee ci palais bi suñu coono àdduna jeex na Ousmane xam na loolu man xam naa loolu yéen ñenn ñi xam ngeen loolu moo tax loolu nag dafa jar sacrifice yëpp dafa jar suñu bakkan jar dugg kaso jar dee jar tudd ci bàmmeel yi di profité ci occasion bi di rendre un hommage appuyé à titre possible ñi dee ci projet bi yëpp ñi Macky Sall rey yëpp ñu dëgg ci bàmmeel ñu ngi koy jaal seen famille waaye ñoom tamit ñu ngi ñaan yàlla mu xare leen ci àjjana firdawsi te rafet nañ ci njort parce que ñun xeexuñu lu bon li ñuy xeex du pour teg lu bon lu baax dong lañu bëgg ak yiw ak li yàlla bëgg wallahi alazim li ñuy xeex yëpp yàlla lañ ci bëgg kese suñu mébét suñu lépp yéene bu rafet la ñeel jaami yàlla yi ba ñëpp yàlla gërëm ko loolu kese la ñuy xeex moo tax suñu njort dafay rafet ci ki tëdd ci kaso bi ki nekk këram di xeex ki nekk ci mbedd mi ki ci oto fiir ki ñu ci dóor bal ki tëdd ci bàmmeel bi yëpp ci xeex bi suñu suñu njoxtu dafa rafet ci kooku ndax dañuy xam ne kooku shahid la kooku ma nga àjjanal fi daws incha allahu rabbi néew ñu dañuy jiitu yàlla néew ñu yàlla dañuy dogal ci borom mais ki rafet ña nga àjjana ji dañ ko teg ci njoxtu bu rafet suñu suñu suñu njoxtu moo rafet suñu diggante suñu borom moo rafet waaye du lu ñu dogal ndax yàlla mooy dogal yàlla mooy xam ku dugg àjjana waaye nag njort bu rafet ci lañ teg na ñoom ña nga àjjana ci njoxtu bu rafet ci suñu jëf suñu yéene suñu taxawaay kon nañu gën a taxaw gën na defar gis ngeen ñi génn ci kaso yi ñoo gis ku ci génn man pare na ñi nekk ci kaso yi génn ñoo gën a pare xeex ñi nekk ci biti ngeen xam ne lii lu yàlla dugal loxoom la nit naka lay nekkee ci kaso huit mois un an génn kooku dafa waroon a ragal dafa waroon a découragé dafa waroon a yox yox dafa waroon a bàyyi dafa waroon a nekk kuy yox yox kuy xool waaye bu gaa yi bu ñu génnee kaso bi ñu génn ci kaso bi ñoo gën a pare xeex ñu nekk ci biti c'est extra yéen ñi nekk ci biti ñu nekk ci kaso leen gën a xiif xeex boo leen gisee ma leen déglu psychologiquement di xool seen gestion di xool seen wax yi dama naan mais ñii finalement ñun Macky Sall daf ñoo dimbali. dafa jël suñu ay xeexkat yu mënta xeex mu jàpp leen dugal leen ci kaso bi forme leen Macky Macky en fait daf ñuy formel ay xeexkat ndax gars yi bu ñu génnee ci kaso bi dañuy gën a aguerri gars yi dañuy gën a alde dañuy gën a taxaw a am fit kaso bi nekk moom ay xeexkat la ñu doon formé ci kaso bi mille et quelques personnes yi Macky Sall jàpp yëpp ay ponkali soldat la Macky jigéen ñi nag gertaru ba wow koŋ Macky nekk ñun lay jàppale te xamu ko nekk ñi mu dugal ci kaso bi yëpp Macky ngi toj seen xol yi Macky ngi leen jàngal xiif mi ngi leen di jàngal ñàkk sangu mi ngi leen di jàngal mën a muñ mi ngi leen di jàngal am fit mi ngi leen di jàngal ñeme dëgg mi ngi leen di jàngal àndandoo nekk benn mi ngi leen di jàngal xam nga xeex ay tappaleeg ay fen moo tax ñi génn ci kaso bi bu leen Macky Sall moytuwul fi mu toll nii bu fi cooki amaatee cooki xeex bu fi amaatee <laughs> Macky bu fi Macky na nga fexe ba bu ba bu xeex nanga fexee ba bu ñu provoqué ki Sall maa ngi koy wax na nga fexe ba bu ñu cokkaas bu ñu provoqué gis nga gars yi ma gis ñu génn ci kaso bi nii ñooy xeex xeex bi de bi yéen moom am naa ay soldats yoo xam ne Macky Sall formel nga ma leen ci biir kaso yi ba ñu wow koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ gis nga boo juumee ba def fi faux pas bu ma jógaatee ci yow man ak sama gars yi génn ci kaso bi xam ne lépp dëgg la force spéciale nga doon wax ak ay équipe bu commando ki ay rebelle ki joolaa ki loolu leen tuddee nga ni maa ngi giñ ci borom bi ne bis boo juumaatee Macky Sall ba def fi loo fi wut a def ci weer yu dafa dese da xam ne am naa ay soldats maa ngi lay avertir nag lii nga tàmbali nii na ko wii continuer continuer ko génn ñëpp organiser élection ci ni mu gën a gaawee ni mu gën a leer donte xam naa ne doo ko def xam naa ne doo organiser élection xam naa ko waaye maa ngi lay xaar yéen sénégalais yi nag na ngeen préparé wu taxaw wax naa leen ne Macky Sall du organiser élection du ko organiser de taxawul ci tànki organiser élection lii muy def yëpp nag di bàyyi nit ñi di génn ki di jéem mel na ku déggoog waa Pastef gi mel na kuy waxaan ñoom mel na ku jubóog ñoom te jubóog la ñoom. day naxaate de da leen di nelawal ñi muy bàyyi ñu génn ñëpp da leen dàmp gere su bay da leen dàmp yéen ñëpp kenn ku ne yaa ngi xandoon ndax dàmp gu neex yéen yéenatal nelaw bay xandoon man xandoolu ma man kenn dàmp ma li mu def yëpp di bàyyi ñu génn dàmp la leen dàmp li mu fas yéene def tàmbali na ko mooy ay consultation bi ay tappale yu kenn xamul dajale na opposition bi corrompu bi les recalés Mamadou Diop Decroix dooméram bi nga xam ordonnance am mak sallu Sall koy fekk Mamadou Diop de croix mang ko bolé ak ay recalé doomi ram yo ne ay doomi haram yo xam alal nguur rek la ñu lekk Mamadou Diop Decroix ma nga ci bij man na jënax nan waw de nga maam nañu bolé li ak inclusif ak yi ah Macky sallu ko yónnee Diop de croix ordonnance yi mi doom yi mi nan nga xam bu ko dé naanu dee Mamadou de croix il est sous médicament assistance médicamenteuse Mamadou Diop Decroix Macky Sall ko monté ña nga taxaw di conférence après di fen rek ngir lan bëgg a wax na ànduñu ci élection yi am ci ak le deux bëgg a utal lay Macky Sall bu mu sukkandiku ba ne jubawuñu kon élection mënu fi am le deux Macky ngi tabax loolu ak waa France na ngeen xam nag lépp lu Macky Sall def Emmanuel Macron moo nekk ci ginnaaw moo ko validé loolu na ngeen ko xam lépp lu Macky nekk ba fii nii lu Fran lu Macky Sall def rek France ko validé France ko def ko France moo ko digal américains yi nag ñi ngi xeex xeex bu méttee méttee métti contre France Sénégal ñoo taxaw tem ne du lii muy def ak union américaine ñoo ko ñett parce que ay dossier Macky Sall lañu rek ci ay milliers de milliards yoo xam ne ay junni junni milliards yu Macky Sall sàcc ci réew ko ci ay banque ci bitim réew américains yi xam nañ fa xaalis bi nekk jabar ji ay lañu sàcc yu dul jeex jabar ji Marème Faye Sall ak ay doomam ñu nëbb ko américains yi xam nañ fi lépp nekk moom lañ ko tegal na ko boo dof dof loo te organisé élection yi démocratie Sénégal boo ko yëgee daañu la jàpp daañu gelé say milliards xaalis bi nga xam ci dañ ko téye doota mën a tukki doo a dem fenn te ndax doom yi Macky Sall yi ay américain lañ madame Faye Sall américaine la doom yi mu jur ay américain lañ ci piste boobu la fisc américain bi jaar def ay enquête ci ay milliards yu madame Faye Sall yi mu nëbbu ci ay banque offshore dans des paradis fiscaux te waroon cee fay ay impôt parce que boo nekkee citoyen américain si tu es imposable da nga war a fay ay a fay impôt boo àggee ci seuil imposable da ngay fay impôt par ak foo mën a nekk ci àdduna bi da ngay fay impôt ça c'est la législation fiscale américaine madame Faye Sall musta fay impôt moom ak ay doomam ay milliers de milliards dañu sàcc Sénégal nëbbu ci ay banque offshore américains def nañ ay enquête ba xam ko léegi dañuy xaar ñu wàcc ñoom ñu traduire devant la justice américaine au nom de fait que ñoom ay citoyens américains ba pare dañu gruger le fisc américain fay ñu ci ay impôt nëbbu ci ay compte offshore yoo xam ne américains am nañ ci accès xam nañ lépp menaces yooyu leen tegal Macky Sall

da ngay da ngay seet lii wax da ngay seet ji wax laajal Guy Marius Sagna ba xam moom jot na ma bi mu ñëwee France laajal Guy Marius Sagna ba xam bi mu nekkee France maa moom déggante da ngay xool yi sos mais kii li muy fen moo ko tey sëñ tubaay man li ma amal duuri neen cam billahi sëñ tubaay sama maam yow nii cam man a cam da xool yi fen ñu ne Guy Marius Sagna ma ma wax li man damay ku ñuy wax li wala wax le li nga ñaan tudd na surtout ah kon loolu la ma fa duulal ngeen jéggal ma ci kaddu xaw ma man duma ko sax dégg moom fenkat bu mag la ak benn laayifar bu nekk Amérique laay borom ñu rëy wow mu ñoom ñaar benn la ñoo bokk ay dilu oto kooku lay woo nag dima fa duulal ñoom ñaar ñu may complot parce que kooku bëgguma moom Bara Dolly ak kooku benn lañu ak ñoom Bougane ñoo bokk ay dilu oto ma oto yi ñu sàcc ci Europe di ko ak Amérique di ko yóbbu Sénégal eh. di ko jaay ak doomu Macky Sall bi ñoo bokk mafia ñu taxaw di wax naan sonko sonko sonko gëmuñu benn sonko am na laayifar bu mag boo xam ne sonko sonko gëmul sonko de moom ak Bara Dolly ak Bougane ak Amadou Sall doom Macky Sall ñoo bokk ay dilu sàcc oto ak Barthélémy Dias ñoom ñëpp oto yooyu ñu sàcc Europe ak fu ne di ko trafiqué di ko yóbbu Sénégal ci port di ko ci parking di jaay Bara Dolly loolu mooy liggéeyam ay dóorkat lañu gëmuñu Sonko ay mafia la ñoom ñëpp ay truand lañu kenn baaxuñu xam naa seen mafia bi yëpp mais taluma nan Guy Marius Sagna moo ne ak kër kër Guy Marius Sagna moytu leen ñiy yuuxu naan sonko dafa yomb xam nga yéen ku ne sonko rek ngeen topp ko sonko bi ne dinga naa maan sonko mbokkoon la bokkoog sonko dara doomeram bi baara dooli bokkoog sonko dara bokku leen dara doomeram bi bàyyi Ousmane Sonko bokku leen dara bàyyi foo taxaw naan sama mbokk la da ngay fen bokkuloog Ousmane Sonko dara doomi xaraam ji yow doom ju xaraam nga Ousmane Sonko doom ju xalal xam nga doom ju xaraam ak doom ju xalal bokkul Ousmane doom ju xalal la doom ju set wicc la asgor la judd fi mu a juddoo yow nag kenn xamul foo juddoo yow doom ju xaraam nga bàyyi Ousmane dara seetaanu ma ko man du ma leen seetaan émission man waxtaan leen man ñoom du man xaw ma may live ak yéen a may yónnee di dagg ak di message man ñooñu man du ma leen déglu xaw ma sax seen jot jamono boobu man maa ngi ci leneen man damaa am jotu toog di di saan ay baare doo óoli xam ne doomi wengal ma moytu leen ñu ci bari ay doomi njaalo lañu kon sama papa loolu ma wax na ma mu ma ñu ci bari ay doomi njaalo lañu moytu leen bu ci dama leen déglu doomi njaalo man dama koy déglu maam jot gi fu mu taxaw naan Serigne Touba sama yow amoo lenn loo jaay askan lu Serigne Touba sama maam Touba Touba waa Touba Touba yow sa liggéey jaay yëpp Touba Touba Serigne Touba yow loolu mooy sa capital Serigne Touba sama maam bu Serigne Touba nekk sama maam nag après après mais kii day fonto nit ñi sa tontu taxul woon may live man ay waxam waxuma ko moom xam na mu baax a baax. xam na bu baax may kan fu mu toll naan ak Akhenaton Akhenaton Akhenaton na baax na ma baax taluma ko doo de baara doo oli baara doo oli voilà na wax kuy ndeyam ak kuy baayam ak mbàkke gim na moo leen sant fan la ko jëlee waaw na kuy baayam ndax bari na ñoo xam ne bari na ci ñoo xam ne ay bëkk néeg leen jur ay doomi bëkk néeg lañu na fi ñoo xa yoo sant yi ne ay ay ay doomi bëkk néeg lañ doomi bëkk néeg moom loolu war a wax wax leen kuy bàyyam ak fu mu jëlee mbàkke gi d'abord waaw baara doo oli nañu wax ku nekkoon ci kan moo nekkoon doo oli ba mu ci moom ki nekkoon doo oli ba mu na leen ko wax waa Pastef nañu sigi Sénégal ñu rus mel Demba Touré politique moo xam pouvoir nga bokk wala opposition nga dem ba ay ñu leen di bàyyi ay innocent def intérêt jeunesse réew nga ciy mer naan lan mooy waxtaan ci suuf lan xew ci suuf moom bi koy bàyyi en septembre deux mille dix neuf moo xew ci suuf leader boobu noonu élection yi dina wane kan moom Grand Yoff ak kan moo moom Dakar ñooñu dañu respecté Sénégalais leer na leen ni ñoom di wax ay xale nañ de ñu gënuñ ñooñu boo xam réew mi muy doxee jàng nañ fi mu war a jàngee formé nañ ci ay école d'état yu gën a bu ñu seqee langue politique bi nañ ko def nekk langue civilisée bi nga xam ne bataille argument par argument la projet politique par projet politique programme par programme mais benn régime boo xam ne yow dala doon noot nit ñi taxaw ne waruñu laa noot mu jékki-jékki bàyyi la yéen ñaar ngeen waxtaan am na ci borom mu am ñeneen ñu mu noot ba mu jékki-jékki mu bàyyi leen am nga lan mooy ñu waxtaan ci suuf kon yow war nañu xoolaat est-ce que yow am nga yërmande ci ndaw yi. xalifa lay tontu xalifa lay tontu ngañ dem ba mu. mo khalifa ñoo bok Grand Yoff ngañ dem ba Grand Yoff khalifa Sall Grand Yoff khalifa lay toll. parce que suñu suñu suñu papa yi suñu yaay fi dëkk kër ñëpp ñu gis ñu xam dëkk bu yi papa dem liggéey kenn la problème bu yi sama soxna génn ak sama doom ban ban difficulté la du bouger donc kon

parce que man bi ma exilé woo laa xam fan la ma Sénégalais yi teg maanaam sama compte bu dee cent franc fa nekkoon bu yokkul wàññeeku wut amul benn dërëm bu jugee sama wala sama yaay wala sama frère wala sama sœur bu ñëw ci man laajuma kenn cent franc laajuma kenn deux cent franc Sénégalais jël en charge des personnes de divers horizons ci diaspora bi ci biir ci biir parti bi ay sympathisants tout loo soxla ñoom ñoo lay te yow laajoo leen ko mais def nañ tout ba en contact ak yow fexe la dimbali dama koy wax ci kaw parce que yàlla moo wax ci alxuraan ne am na ñuy def di saraxe ci suuf comme ci kaw parce que am na foo boo defee ci kaw dañ ko war a ci kaw nit xam ne lii moo baax. Mm-hmm. askanu Sénégal amaloon tuuti maanaam deseetu ma dara donc moment bii laay am seen taxawaay mu parce que su ma limee tout remercier solidarité. tamit seen ay collègues de l' administration judiciaire xam ne métti woon ya na biñ ci tànn tamit ne dañ taxaw ne kii dafa dara xamul ñëwul yi jàng na fi mu war formé nañ fi mu formé bi muy liggéey fii amul lenn lu reproché sur le plan administratif donc maa ngi di remercier ñoom en tout cas samay collègues ci administration judiciaire li ci des mooy remercier peuple sénégalais di wax ne ñan ñan ñu ñaan yàlla jàmm ji wëy parce que jàmm tam nit bu takk ay pas da ngay nangu ne lii jàmm Macky Sall mi teg ay baax nañu xool fu mu tax nag li mu defoon ñu fàtte ko lu tax li mu defoon ëllëg sénégalais yi décidé nañ ci def parce que nag moomuñu ko loolu ay nit ñu lor seen i mbokk la ñu ñu rey la ñu ñu tëjee justice moo war a àtte loolu ñun amuñ ci kàddu ñun ay acteurs politiques moomuñu ko waaye nag apaisement bi ñu woote ko wéyal Sénégal yëpp wéy ñun ñibbisi nañ tàgguwuñ kenn kenn joxuñu garantie mais dañu jàpp ne jeex na six mois yi jàll na li ñu waroon def def nañ ko dañuy dem élection ñu ngi si la ñu tàkkuwuñu kenn bokk ci ay autorité publique fii wala affaire bu garantie quoi que ce soit li xam mooy pays ñu ngi si jàpp nañ amul lu ñu ngi fii ci jàmm la disposition de notre pays de l' administration de notre pays mais aussi de notre pays sur le plan politique pour liggéey Sénégal donc li ma ciy teg nag mooy détenu yi wax leen masawu leen ñu dellu seen njaboot waaye nag ñu wëyal taxawaay gi xam ne ñoom ay ambassadeur bi seen i koñ wane ne

j'espère bien que ren moo ko def dix ans euh, pour wax rek ci intégrité au temps mu nekk Mali euh, man je suis de Pastef Mbour Mbour Sali dañoo defoon benn collecte pour essayer envoyer ko ko pour seede juste intégrité li ma seede mu ngi nii li ma tontu mu ngi nii du ma bàyyi ma fet il m'a dit di Cheikh Anta foo laisser tomber fii lépp ma jëlaat xaalis yi ku ci nekk ma delloo ko sa loolu rek preuve d'intégrité la ndax ku ci nekk da nga bëgg maanaam koom ki koom ju jiitalu ko kii suul te mën naa ko wax ndax dañ doon cotiser pour ndékki man mën naa ko wax puisque dañ doon cotiser pour ndékki te ligne bi dara changé wu ci fu mu mës a xam naa ko ba mi muy këram xam naa ko donc euh, wax dëgg fa neex yàlla sama xol fees na sama xol tooy na mais kontaan naa puisque xamul dañ naan alhamdulilah rabil alamin euh, Macky Sall nag lenn rek laa koy comme message maa ngi dégg ci yenn groupe yi ñu naan le gars ne va pas organiser les élections il va essayer de nous laisser avec l'armée Nous, comme ko ñaan on le défie il n'a qu'à essayer pour voir <laughs> il n'a qu'à essayer pour voir Nous sommes ay bandits nous ay terroristes on est des sénégalais on est des patriotes qui aiment notre pays du coup on est prêt à sacrifier pour le bien-être de notre pays. très bien.

na Guy Marius Sagna jub ngeen ànd metre ak maître Ngagne Demba ànd ak Guy Marius Sagna na campagne bi jolli partout au Sénégal partout Macky bañ leen a bett ba fasul yéene organiser élection la fasu ko yéene mais su ko organiser wul na ko dal su ko organiser na ko dal paaka ñaari boor su ko organiser na ko dal su ko organiser wul na ko dal nañu jóg waajal suñu bopp paaka bi na ñëw ci ñaari côté yëpp voilà maître Ngagne Demba Touré jaar fii Guy Marius Sagna jaar see ñoom lañu xam ñoom la gis ci terrain bi ñoom ñooy mobiliser nit ñi kon ñoo ngi seen ginnaaw ba keroog Ousmane Sonko di génn ak Diomaye c'est ça la vérité acca na ko na ko daal Ismaïla Ngom Ismaïla mu wax ay sama is day sànn Ismaïla Goudia <laughs> mi ngi ree Ismaïla moom Ismaïla mënul wax bàyyi leen is is homme de terrain la il est efficace moom bu leen ko jox micro bi nëbb leen ko bu leen ko jox micro bu leen jox Ismaïla Ismaïla bul wax de Izo Ismaïla wax oh sama Ismaïla bu leen wax noonu nag un vrai combattant un vrai patriote Ismaïla de Pastef Grand Yoff efficace HLM Patte d'Oie très efficace

vraiment di ci bañ waaram boobu ba léegi mu nekk ci di ko doxal ba tey célébrité su su amee jëmm tey. c'est mhm. c'est c'est grâce à lui. dëgg la koy remercier di ko jaaree bu baax a baax. Euh, ci carrière am toujours bu dem ba ba ba nekk biir art ba ñu tabb ko biir JPS dénk ko la coordination nationale de la jeunesse patriotique euh, du Sénégal doon ci jàmbaar lool lool lool lool lool. ñun dañuy dañuy toog sax naan mais ñun suñu waa ji suñu waa ji suñu waa nañu lool lool lool lool. parce que vraiment li ñu doon séddoo dafa weesu te da di xale ñooy ndaw waaye li ñuy xale la waaye expérience xajul sax président Macky Sall donc na président Macky Sall mooy du mel ni Demba Touré loolu laa laa wax wax di ko fàttali nga dégg doomu Grand Yoff la doomu Grand Yoff la te Grand Yoff yi ragal dëkku fi. donc hmm. problème. stratégiquement dafa jaadu ñun ñu dem réfugié wu fenn. Hmm. te ci loolu maa ngi ko ci a man nag euh, dañ ma libéré jeudi bi passé yéen a ngi dégg détenu politique yooyu ñu libéré euh, jeudi bi bari kon di leen di libéré dañu euh, ngi ñaaxaat président Macky Sall ni ko suñu morom détenu politique yi biir prison ba léegi ci biir prison ni fa bëri ba léegi donc ba léegi Thiès moom yaar yéen di ko ñaan encore une fois mu libéré leen Thiès y a pas de leader y a personne là-bas bu jàppee ni que ni mu libéré nii rek doy na mu bàyyi fa ñëleen day nax boppam dana nax boppam parce que ñun combat lañu xam ci combat lañu duggee Pastef te danañu continuer combat bi. cëm incha allah de 2 avril. waaw investir le président Bassirou Diomaye Faye. incha allah maa la ko wax. donc ci loolu di nuyu di jaajëfal les encore une fois waa 43 waa chambre 12 ci mel ñoom bisu dëgg ñëpp ñu nekkoon fële ni Manuel président Ousmane ma nekk Cap Manuel ñu koy jaajëfal bu baax a baax di wax tuuti ci rek.

salaamaaleykum man man Akhenaton nee nañ maay financé force spéciale bi ñun nee nañ maay bailleur de fonds bi man Akhenaton mooy mooy bailleur de fonds force spéciale bi mandat d'arrêt il faut ñu dem jëli ko waaw man ma mais mais ci laa bokk di mais ci laa bokk di mais man mii tamit ci kaso bokk di maa ngi ci kaso bi di nee nañu Akhenaton moo financé force spéciale bi Antoine Diome Youssou Ndour jóg l' observateur ñoom ñëpp ñu revue de presse ma tës ma ak kenn tooj mandat d'arrêt international FBI lalalala patati patata am na jamono kay la illah illah Seneweb woo ma Walfadjri TFM euh, Sen Média sama téléphone bi i toj ku nekk di woote man leen nokk leen fële waxuma kenn ci yéen du ma ci kenn ci yéen buzz ngeen di wër man man je suis communicant je parle quand je veux avec qui je veux où je ci kenn ndax yéen fu réew mi àgg yéen a ko fi yàqal TFM. RFM l'observateur Seneweb leeral lëndëmal yéen ci suñu noonu ngeen bokk waxuma ci kenn ci yéen dàq leen ñoom ñëpp renvoyé leen chier Mohamed Diallo xam ne bu baax en daf maa woo ba sonn ma ne ko du ma woote man su ma amee lu wax du Seneweb laa koy waxee damay naan yi ngeen doon man patriote la su ma bëggee wax xam naa fu may waxee da ngeen maa jiiñ force spéciale Youssou Ndour ki Macky Sall fi Madiambal la fi ngeen tappale fu ngeen mujj anamu ngeen na maay bailleur de bi <laughs> maay banque maay financé force spéciale eh, yi maa jommi ci mim ana anamu fu mujj anamu Ismaïla Goudiaby bi bokkoon na ci ñu japp na ko ci nga bokk ñu bayyi ko rek ñu jappat ko bayyi ko jàppaat ko troisième fois dañu japp di bayyi rek tëj ku ñu neex japp ku mu neex genn Antoine jom di fen sidik Kaba di fen Moussa fallé di fen Bokar yag di fen deng man Seydou Wagge di fen Bara Sankare ñuy fen rek de seeni PV japp nit ñi di bind lu neex sosal ma tiñal ma may ñu boole ma man ci force spéciale laa bokk di man mii man seen liste bi waaw mooy financé mooy bailleur de fonds bi jàpp sama frère dugal fekk ko plage ak doomam jàpp tëj jëpp ko moog doom ji yóbbu jàpp ñu bari tëj jàpp ay lafañ tëj jàpp ñu dëkk Tëngéej boole leen ñu nekk Dakar ñu ne ñoom ñooy force spéciale bi ay ñoo xam ne xamante wuñu sax ñu lépp def lu leen neex bind seen i PV ak jox sax jox jox Mamadou Seck mandat de dépôt direct.

man nañu tax ñu bàyyi mën nañu ragal ah force spéciale ah dissoudre Pastef attention adé addee ah, kër kër may leen dara xex rek mak Sall ragaluñu ko ragaluñu kaso ragaluñu dé mi ngi ray bo ba légui waaw metti na ray gi xam sé mar mais plus muy ray plus muy gëna tangal suñu xol plus mak Sall di ray plus suñu xol di gëna bon plus ñukoy gëna tekk mom mak Sall benn patriot boo rey dafa mel ne rey nga patriote yëpp yow Macky Sall maa ngi la koy xam benn patriote boo tëj dafa mel ne tëj nga patriote yëpp benn patriote boo tëj yow Macky Sall yaa ngi gën a dugal sa bopp ci guuta ñoo ngi lay gën a mere ñoo ngi lay gën a tëkku ñoo ngi lay gën a rëbb te bu ñu jàpp di nga xam ne lépp dëgg la benn patriote boo rey xamal ne rey nga sa bopp rey sa njaboot rey mareem rey say doom wallahi maa ngi la koy wax duñ la may dara continuel reyal tëjal benn patriote boo tëj rey nga sa njaboot rey nga sa bopp benn patriote boo rey Ray nga sa sa bopp rey Marème Amadou Sall Ray uh, say doom rey say Mbok yow Macky Sall parce que duñ la bàyyi loolu ba ba loolu moom bay do xam xana nga ñew sukk suñu kanam tuub jéggalu tok sukk ram ba ci suñu kanam nga bal ñu sok lay bal. ndax ñun ay jullit lañu mën nañ la bañ top. ci kaw nga jéggalu mais boko deful ñi ngi sa kaw bay bo nga paré yow Macky Sall duñ la may dara parce que li ñu def dafa metti te tegoo ko ci dara lu dul sa bëgg-bëgg bok ak sa bëgg-bëggu jabar Marem Faisal. Kessé voilà ñun doon nañu si nekk di yox yoxi effectivement Mamadou Dia toog 12 ans kaso ana Mamadou Dia Senghor 12 ans la ko tëj Kédougou muy muñ ñun ñu tëdd un an deux ans di yox yoxi bu fi kenn yox yoxi bu fi kenn ragal bu fi kenn tiit jigéen ñaa ngi ci kaso yu tëdd di muñ génn nekk ay jigéen ñu dëgër waxoon duma laa góor ñi patriote day dëgër patriote day am fit patriote day ñeme dëgg patriote day bëgg réewam patriote day dëgër bopp ci dëgg ay Bara Sakho lañ t'inquiète pas liste bi xam nañ ne ñoom ñëpp te ñoom dañoo amul chance parce que temps Senghor rek Diouf mën nga ko def booba amul internet amul mën ngaa jékki-jékki génn Sénégal dem kenn du xam foo nekk mais léegi fu ci waaye dem ci àdduna bi dañ lay traqué bildee ñoom ñëpp ñu ngi seen i liste Bara Sakho rek Moussa Fall ñëpp su Macky daanoo yaakaar nañu mucc nañu dañuy daw dem laqatu ji changé ay tur ak yooyu fu ñu nekk ci àdduna bi daañu leen loqati Bara Sakho ak i njabootam Moussa Fall ak njabootam boo ko Seydou boo ko yàgg ki nga xam ne mooy non ñoom ñoom ñu ngi liste bi du ma fa nekk tudd ñoom xam nañu duñu leen bàyyi mukk mukk mukk mukk liñ ñu def dañ koy dañu yaakaar dañuy def rek bàyyi mu jàll noonu non du demee noonu du demee noonu jamais ça je vous le promets on a les moyens de notre combat waaye yàgg naa leen ko wax dugal nañ seen bopp loo xam ne ils ont foutu leur vie dans l'air yàq nañ seen àdduna ñoom topp Macky Sall tey Macky dem na ba xam ne li mu def mënut a prospérer mënut a continuer Macky Sall mi ngi jéem a dellu ginnaaw pour dabu ñoom ñu ngi ne nii taxaw di xool ban bund lañ jaar pour daw làqatu ji mais ñun nous sommes le monde nous sommes connectés nous avons des réseaux partout nous avons nous sommes puissants fu ngeen nekk ci adduna bi man ak yoon doon naa leen fa fekk maa leen ko wax yow Bara Sankaré Seydou Bokar Wagg seen doom yi seen njaboot yéen ñëpp on va vous traquer votre vie là vous l'avez bousillé en l'air à cause de à cause d'un pouvoir et de la corruption c'est terminé pour vous plus jamais vous, allez vivre sur terre tranquillement plus jamais ça je vous le promets ay Mamadou Diallo ki ay Maham Diallo ki ay Mamadou Seck ki ay Bassirou Gueye Amady Diouf Abdou Karim Diop procureur on vous a on a la liste les listes sont arrêtées depuis longtemps on a on a identifié nos ennemis tous on vous a identifié on a déjà parachevé nos listes scellées tech, on connaît notre projet qu'est-ce qui nous attend on sait tout kon ne ko ñëpp xam na ñëpp xam ne xeex baa ngi soog a tàmbali ba ñu commencé ba léegi xeexu xeexuñu dañ doon entraîné wu xeex baa ngi soog a tàmbali un instant ne quittez pas yàlla oui allo oui 呃，他在那买屋了？哦，这边。

ñu def liste oi alô oi alô oi oi oi oi oi oi, oi, oi oi oi, hmm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 Ok, ça marche. Oh, je vois. Je note ça. Je suis en live là. Je te, je rappelle après. Je suis en direct sur YouTube. Ok. Hein? Oui? Oui? Allô? Oui. Donc voilà.

pour mën utiliser l'article 52 créer une instabilité fexe à l'est du pays vers la frontière avec le Mali Tamba Bakel Matam créer fa ay trouble fa mercenaires des rey fa ay attaquer ay bus ay camions tout ça Nous, ce sont les terroristes du Sénégal patati patata décréter état d'urgence évoquer l'article 52 taxaw Le lépp ci ay plan au Macky Sall la plan au Macky Sall la donc il faut être vigilant ñu taxaw amul desserré amul taxaw naan wuy léegi jàmm léegi mi ngi libéré tout ça tay la waaloo gën a Macky Sall saa soo ko ba mu desserré vis bi xamal na mi ngi préparer lo xam bu lako ko sofaatee dootoo c'est le moment de l'achever Macky Sall il faut l'achever il faut l'achever mais grave grave grave il est devenu tay la gëna dangereux barki démb Macky Sall bu démé bay reculer bay am lu lay may xamal na oh, la bête est blessée et quand la bête elle est blessée elle devient plus dangereuse et plus furieuse c'est le moment le plus dangereux ci combat bi ñuy xeex ak Macky Sall taxaw nag di nooyal naan noo diw génn na bàyyi na diw dina bàyyi Sonko noo Macky léegi tereetul manifestation yi kaa yaa ngi campagne léegi tout va bien jamono boobu la la Macky Sall di rey jamono bii moo jamono bi gën a dangereux parce que day fekk yow nga jaaxaan na yàcc na yesar tu n'as plus la vigilance pare woo pour xeex foofu la lay fekk bu la dóoree bal ci bàmbeel bi ngay tëdd jóg leen taxaw ñu gàttaru xeex ak Macky Sall parewul jaan la tant que daggoo bopp bi genn gi day yëngatu te daggagu leen dara moom ba léegi moo am ndam élection le 25 février mu ne du am élection yi amul moo am ndam conseil conseil ñëw ànd ak moom ne ko bul def élection de 25 février jàppal bis bu la neex waaye bu mu jéggi la 2 avril élec conseil constitutionnel ak Macky Sall ñoo ànd ay bandi lañu ay wuyu lañu seen bopp lañu fi nekkal réew mi lañu dugal ci instabilité créé fi crise dugal fi ay rebelle dugal fi lu leen neex wala jaxase opposition bi ne d'accord ñu élection mun tam Macky Sall du organiser élection avant le 2 avril 2024 man maa leen ko wax fii du ko def te xam naa lu tax du ko def kon ñun nañ jóg taxaw préparé wu pour dem élection waaye préparé wu pour reyante ak Macky Sall bu fekkente ne lii ma wax def ko te dina ko def kon dina reyante ak moom nañu gëtaru taxaw na cocktail molotov yi gën a bari stock yi cocktail molotov fi yéen ñu nekk ci koñ yi koñ yi Sénégal gépp commencé leen fabriquer ay cocktail molotov yu am doole doole ut ay xeexukaay pour xeex ak Macky parce que dinañ xeex ak Macky Sall man maa leen ko wax yéen nag bu commencé kaso commencé bàyyi ngeen di manifester ngeen di caravane jàppatul kenn tëjatul kenn gisu leen gendarmerie gisu leen musaafar pour yéen alhamdulilah ngeen commencé jaaxaan nag di wat seen i di féexal ak tal seen kilma climatiseur lek seen ak di rek nappaaje yëgu leen la xew parce que ay lapote ngeen jamana booba ngay xamne mom ngeen di jaaxaan di nelaw ak nappaaje fa la leen di fekk seen kaw jabar ray len ñeen ngeen de tay la mak Sall gëna danger du leen taxaw ñu xex ak mom jël ko fi lu rek la leen wax foofu laa yemale live bi di leen jox ndaje bu ko laaje fii ak ay fan inshallah allah rabbi vigilance combativité endurance solidarité autour de Ousmane Sonko est de ziar il est il